ويحدي بال وبيل مرهم لسامه من كل سام مقصد تدوي الفؤاد فلا تداوي ما جنت فيه وتسمي فالفؤاد فلا تدي والعقل تكنفه الجهالة والعمى أبدا لقيت ذل غير مسرهدي وحيال كل أوهام ليس بقائد فيها سوى قبس مع المتوقدين mu ne wasabal hawaa ñëw ka bànneexu bakkan mas moomatum lu ñu daas la mas moomatum lu ñu tooke mu ne bànneexu bakkan fett la boo xam ne dañ ko daas ba mu ñëw ba nga xam ne kum laal rek dana ko dugg ba yàqu ko ñu def ci togoon ba mu ba nga xam ne kum laal rek su ko dugg toon itam poson bi dana ko dugal mu ne xawaa noonu la loolu dafay dugal nit ci lu ñaaw a ñaaw lool wala mu dugal ko ci loo xam ne su nuru wut ne diis na ci fayaru sariyaati itam ittibaal hawa moo ci juddoo rek subaana nit natiija ittibaal hawa natiija ittibaal hawa rek moo ci amee wasabal hawa ñëw ka bànneexu bakkan mas loolu tun lu ñu daas la mu ne bànneexu bakkan tettam dañ ko namm bañ ñëw ba nga xam ne kum laa rek dafa yàq kuy dugg rek dana ko laal mas moomatun lu ñu tooke la ñu def ci dangat ba nga xam ne laal rek dana ko yàq man taatale ko kum haaju moom sabal hawaa yat na dana mu soŋoŋ in lam yokku fat ndegam dóomu su ko kuñ dal bu la rayut xoppal la waaw kuñ dal waaw bu la mooy ittibaan xayaa suñuy dund. bu ala kuuti danga tardé. loolu mooy wax bi. ittibaan xayaa léeg mu yóbbee nit bakkaat fi ko ba kaw. léeg mu dem bu yóbbee nit murtad far. loolu alaku la. wala saa boobu loolu xamu ca. waaye yan na ko ci sa loo loo amul njëriñ diw bu yàgg. loolu lañ perte ci temps te waxtum ay ndenkaane yàlla la. kenn ci nit yàlla yi mu ne nit kum mën a doon juddu sama borom dana ko yootal muy ndey lu mu ne caanu wal ilaam lay doon la koy xamalee ne ko andi naa la àddina nga nekk ko laab nekk ko fat benn bàkkaar toppul la fi léegi nag bu ba àddina na nga sàmm kóolere na nga sàmm sa dund ndax sama dénkaane la te danaa ko jël nga xam noo koy amee waaw dana ko wax ne ko indi naa la àddina nga nekk taawaran na fii fan kon ngella boo de kon ngella fii nga dikk na nga xam ne dund bii ngay dund la bés dana ñëw ma si ko nga xam noo koy yoree sàmm ko bu baax su ko defee ki dikk nag ay waxtu mu leen dundalee ci lu baax mm. mooy kii sàmm dénkaane boobale mm. waaye walladiina hum li amaanaatihim wa ahdihim raahoon leen mën na ko dégg foofu ak lu mel ne aw foo bi ahdi oofi bi ahdi comme leen mën na cee déggee foofu mm. benn bi keroog buy dee la buñ dajee da ko naan naka ndénkaane li su fekkee mataloon nga ko maa ju des dana la koy ba nga kontaan su fekkee sànkoon nga ko kon dana la ko laaj ndax waxoon naa la loolu leer waaw ah, wax nañ ko de wax nañ ko de ñeen lii de nit ku nekk ah waaw gis naa ko ci yaay gis naa ko ci xóotul xulóob gis naa ko ci ay téere mu wax loolu gis naa ko ci xóotul xulóob gis naa ko ci iyaay xaloomi diin bu baax a baax mu ne daawul jàngoro la وأن تفوت ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره أو أن تفوت ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره قال بعض العارفين وهذا جنبه إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام mu ne kenn ci nit yàlla yi wax na ne sama borom tabaraka wa ne ñaari yootlante hmm. yoo xam ne jaamam bu ne hmm. ko ko yootal hmm. mooy dana ko ko xamal ahaduhuma isa xaraja min badni ummihi yaqulu lahu abdi qad axrajtuka ila dunya tahiran nadifan واستودعتك عمرك واتممتك عليه فانظر كيف تأخذ الأمانة وانظر إلي كيف تلقاني indi naa la fii ci àddina hmm. nga nekk ko laab hmm. nekk ko set hmm. benn tilim topp la yaa ah, dund bii ma jox la dénkaane la kóllëre gooy sàmm la seetal nag noo koy wattoo te ne ëllëg dañoo daje muy buy juddu sama borom daa ci daa def ci xelam mi xam-xam bii waaw buy juddu sama borom daa ci xelam mi xam loolu nee naa dégg yonente bi mu ne kum mën a doon buy juddu hmm. njub lay ba xelam lay def kullu mawludin yuladu ala fatratil islami te hmm. loolu hmm. mu ne wasaani inda xuruji ruuhi wi ku def lu may mu ngi dee sawara ko abdi maa saa sanata fi amaanati indaka nagam dénkaane la am noo ca def xalaatutaa xataa talqaani xalal haadi fa alqaaka hmm. bil xalal wafa hmm. ndax yaa ngi ko doon sàmm hmm. su fekkee da nga ko doon sàmm kon man maa ci des buñ dajee li nga danaa matal kóllëre gi awa daxtaa fa alqaaka bil mutaalabati wal iqaab wala ma ko doon saa gënee bàyyi ma ko doon de waylil isaaratu bi qawlihi taala awfu bi haadi awfu bi haadikum wa bi qawlihi a walladiina hum li amaanaatihim wa ahdihim raawoon danga nag boo demee ci xool xul waaye bi la jëkkee ñaañ kii ni ñaata réew gis naa ko ci daal gis naa ko hmm. ci jor bàyyi xel la yëgul وانتهض ساعة في عمره تكون عليه حسرة la doon waaji mu ne daa yoon la hmm. dafa hmm. yoon la maa balla dumu xittil sa téema woo aji woppam illam hmm. yu saat ndegam dimbaleeku ko hmm. bi tabibi caaji garbal almusadi kuraaji dimbale hmm. kum dugg soo amul docteur boo mën a faj doo wér mukk waaw mu ne kum dugg boo amul docteur boo mën a faj doo wér mukk tamit baax a baax a baax nit bu fekkee awoon nafsi dafa am doole ci moom lool lool lool lool su dellu ci taalimu nabi sallallahu alayhi wa sallam kalam gëm ko bu baax a baax a baax a baax a baax dana baax a baax kalam gëm ko bu baax a baax a baax a baax gëm koo xam ne jaral na ko xeex ak bakkanam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour mu mucc moom wóorut waaw dana baax a baax waaw nit bu fekkee awoon na si dafa am ci moom doole dëgg dëgg dëgg dëgg bu delluwut ci taalimu nabi dun ko bu baax a baax a baax a baax a baax su booba sa seena xeex ak bakkanam bu baax a baax a baax a baax ba tegee ca ak muccam wóorut gis nga bu baax a baax waaw gis nga bu baax a baax waaw soriya bi mooy garab gis nga bu baax a baax waaw soriya bi mooy garab borom xam-xam yi su dee amee yi loolu baax a baax la hmm. dañuy yónni juraay yi jàngoro hmm. maa balla du mu këkkal fa xiima waa aji hoppam hmm. illa mu saat ndegam dimbale su bi tabibi caaji garbal almusadi kuraaji dimbale yaa way hasi baalin xanaa yërmande yi borom mooy ay goran ci borom xel. wa bii leen xel mu mbasu. mooy xel mu nekk ci wóoradi. moo di doon wala wu gaaral. li si ci fetti hawa. min kulli sawmin ci gépp fett. muxsidin gudaa ji nit lu ñor ñor ñor. su fekkee ne man da damm sowatu nafsi. xaajoog hawa nafsi. taxu dara wóor ah. ndax la ko wax di liggéeyloo luy fatt kalam la waaw ah. ah, waaw la ko wax di liggéeyloo luy fatt kalam la yéen ko baax baax yaa way asi baalin bana yërmande borom kal wa biilin kal mu daaji nekk mbas kal mu mbasu mooy mu nekk ci wóoradi mu waradin kal mu de muy gaaral li si am yi ci fette hawa min kulli saamin ci bépp fett muxsirin bu daaji boom tudd wii danañ xottal danañ alfu aada xel salaatu daawi garbal maajanat lu fii ci xel nit bu dee def ittibaawul hawa bu yàggee basiiraam day fattu ndax bàkkaat bi te dara ko Hmm. te tuuti danañu góom te foo di borom xel hmm. talaata di te duñ ko diyaal. Hmm. dina ko baax a baax. waaye eh, du noonu. rek nga dëpp dem ca nam dox. loolu laaj boo yëgee ne du noonu. rek nga dëpp dem ca nam dox. inna laa yabsutu yadahu fi layli li yattaba musii'a nahaari weesutu yedda binnaari hmm. li yettoo musiu layli waaw ah. yërmande yàlla heure bu nekk hmm. buntu yërmande heure bu ne mu ngi ubbeeku parce que boo yëgee ne dundoon rek dangay hmm. def fas dellaat canam la sama bu baax waa su xawaa war a xam foofu la xeex ne waaw nit ko ne heure bu ne junni woon ne waaw waaye maye bu dégg yow dund rek mu dëpp dellu yoonam def seetlu la bu baax a baax waaw seetlu la rek waaw maye ko bu dégg yow dund rek mu dëpp dellu yoonam def waaw seetlu la bu baax a baax te bu dëppee rek ko nangu loo wala di ana baadi yi wa yàqu an sayyiaati seetlu bu baax a baax dana bàkkaar bi bu ñu ko day lëndawam day si xol bi su ma dee ne li mu amatut hmm. da a dégg man attaque bi mu ne sën bi kaman laa sam ba lëwoo te lëndëm bu ñëwee ci barab hmm. lu ëpp doole lëndëm gi bu hmm. leer ga moo koy def su ma aw naa ayatu leeli wa jaal naa naari musira lu leera tey guddi bu ñu nekkee mu lëndëm këris leeru jant yi guddi ki ëpp doole lëndëm ak guddi gi ba puus ko bu lëndëm tawee leeru jant moo fi ne te loolu baax a baax nit itam bu defee bàkkaat lëndama bàkkaar bi nekk ci xol bi hmm. mu tuub leeral tuub bi bu mu tuubee doole lëndama bàkkaar bi ba jëlee ko bi moo ne ci xol bi tëlu la bu baax a baax hmm. loolu moo tax nit mu ngay gën di fonkee tuub rek hmm. noonu la xolam di gën di jolle ci ci leer xol bu dee ba ci loolu dem bañ boole ko ci tuubkat yi fa yàlla te sama borom bëgg na tuubkat yi tëlu la ko waaw tëlu la bu baax a baax waaw ah maanaam suñu matu sëm bi noonu taw ba tey ko ëpp te lëndëm bu newee ci barab leer bu ko ëpp doole bu ko fa jëlee leer gaa fay ne. loolu la dafa mel ni fu ma waxoon na musira loolu la xaw te loolu lëndëm yu guddi leeru jant bi ko ëpp bu jant bi fenkee ba mu jógee ko rek da ngay gis moom leeram gi moo fii ne. te loolu bu baax a ah. mooy jàngi baat du ci nag da koy wax mu ne tuub hmm. ñëpp dëppoo nañ ne bu ko xéefar defee génne ci lislam hmm. génne ci kufru dem ci lislam hmm. dañ ko ko nangul ndax wa qul lilladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad waaye ak jullit nag bu génne ci njubati dem ci njub dañ ko yaakaaral nangu tuub waaye sañuñ ci àddogu mu ne wuutee mooy ci am ci biir borom xam-xam man nag bokkuma ci borom xam-xam yi waaye daw ji moom neex na dëgg na day kanam ndax dëgg yàlla itam daal xéefari daal war na war na jël ngir jullit waa ji seetlu la wax dëgg yàlla xéefar war na jël ngir jullit waa ji xéefar la ñaan nangul du nangul jullit ah xaw a seetlu ngeen xam de ah xéefar di wax war na jël ngir jullit de ah xaw a seetlu ngeen ko wala seetlu ren man de foog ne dañ ko nangu moom d'accord yow na si yàqbalu tawbata ana baati yi ana ku ci ana ku ci génn kenn ci borom xam-xam yi dañ ko laaj mu ne moom bu bàkkaatee xam na heure bu ñu koy jéggal ñu ne ko ban mu ne bu tubee rek moom d'accord moom bu tubee mu ne man kay bàkkaat moom bu ma ko def rek xam na heure bu ñu war a jéggal mu heure bu tubee rek waaw te loolu bu baax wala mu di ba mu taw ba xaanee ba di buñ ko nangoo koy baal nañ la. yàlla jubale na yàlla yow ay dégg nga waaw. waaw ku man de la ku baax a baax la waaw. wala tulqal qala wala yatubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihuna ñaar da ngeen di tuub ndax ngeen di taxe xamee na jëne kon tuub tariqun fala hila waaw moo tax nit dunduwut par bu ne mën na ci noonu comme malaaka waaye li ñu ko sant mooy bu yëgee du mu rek mu dellu jënam ba loolu moo li ko sant rek waaw dëgg ban li mbalal yàlla da dikk waaw waaye dunduwul la bu ne mu nekk jënam ba waaw ndax du malaaka waaw waaye li ñu ko sant rek bu yëgee du lim ko rek mu delluwaat ci lam def waaw. wala ko xel teg na fi woon yow gën a ko teg. aljahaalatu réer wala ma ak gumbo. abadan taw. laqiyatun kam ku ñu for la. dalla boo fi andi nangu. reera musarradin duumu ku ñu rafetal xañam. mu ne xelam bind de. xel mi nag am na dugg ju doole muy bind réem. mu ne nim mel mu ngi mel ni liir boo xam ne dafa nekk ci xàll seen nekk baax a baax liir bi dara jotu ko waaye mënal la ko boppam dara kenn ci ñaar yëf mooy am bala ko ko luy lore de fekk ku koy xet li fekk ko jël ko yóbbu ko dimbale ko comme nit ko sotti wala ku wooteet li dikkut hmm. luy la rafetal waaye moom ci ni mu toll nii rek hmm. wax dëgg mbiram mënu cee sottee te kenn du na hmm. nga ne kanam dimbali nii rek borom mën naa xam saa fekk daje kilifa gu ko teg ci siratullahil mustaqim su ko defee mu jëriñoo ca xelma wala mu ñàkk saa fi yéex a dajeeg loolu xel mi ko jëriñ dara. maanaam xel mën da doylu wali sorian hmm. déedéet xel nii rek ni mënu si jubee ndax sorian mooy yoonum jub hmm. te noorul wayi rek moo ko mën a wane da ngay alon fi sara kitaabu rabbina hmm. loolu rek mooy dëgg ak foo mën a dem loolu dara du ko dindi waaye na ndax li muy wax dañ koy xam doo koy mën a topp hmm. te xela koy xam loolu moo tax sëñ bi waag dof waaw kullu tawlihim bi fàtte nàqali xam nga ñoom yëpp si musit hmm. waaw mu ne sëriñ ci noorul yooyu rek la mën a génne du génne fu ko mooy hmm. nee na sëriñ it borom xel lay waxaat du wax ak dof waaw mu xel la mooy ko sëriñ di waxat loolu borom sëriñ di waxat kon loolu bu baax waaw sëriñ xam na xel moo xam ne jaadu na sëriñ wax ak moom mën naa jot ci temps de woo sara yow balaa yàqu na ko yéex a jot loolu la wala xelu xel fenn ku moom dana ko peeg al jahaalatu réer wala maa ak gumba fa wala tuutun kam kuñu far la adalla koy wàllu na mu raara mu saradin doon eh, eh, duma kuñu rafetal jaariyam wa xawaalikul awhaami lëndëm mi lënt yi laysa bi qaa'idin duut aji wamat fiyaa ci ñoom siwaa qabatin neexaa lu mooy jumab xel al mutawattidi bu daa ji tàkk am na mbir yoo xam ne il faut rek basira bu xeebu si la ko nit di xamee baax na ko wal mar'u yajhalu summa yajhalu annahu tunjali fi ardi dalaali wa ma fudi وإذا تدنى في الوهاد بأنه فوق المصاد فذاك جد مرهدي ذاك الدواء أنسى الدواء له وما كل المداوين الدواء بالعدد والطمع أملك وسماعها في الفتى خلق ونور عنه إن لم تبلدي والعقل ما هو البقل والحد الذي يمطر ليس بمطر ولا دليل njàngaloon mu ne wal mar'u waay yajaalu danay réer summa yajaalu topp mu réere ne an hoomam sul jaali borom ak réer la fi afee dalaale ci njafeel ak réer waa fu dee te joteesu ko nit léeg-léeg te du yëg ne réer na kooku nag day nekk ci njëgaare sànkote te kenn du ko jot mooy kooku du koy gindeeku mooy aljanul mu rek borom du koy du soxla gindi kat seen bu baax a baax nit il faut dafa yëg ne soxla nañ ñu baax ñi war a mën a wal mar u waa yëgaaru gën a su ma topp mu réeree na woon ne kaw suul jëli borom ak la su yaatee dalaal bi moom mooy nekk ci njëkk sankute waa ko di yette jote su ko mais nit ñi ñeent lañ rajulun yadri wa yadri annahu yadri wa zalika alimun fattabi'u wa rajulun yadri fala yadri annahu yadri wa zalika naimun fayaqidu wa rajulun la yadri ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلمه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل ترفضه لأن من ينتج إليه وإذا تغنى بجرت ممت سنيا دي بمولي شكري بأنه تلك من فوق المساد منك كون جب دجي فذاك كوك جد مرهد موك دفتك nit bu nekk ci ndigaanal tax mi foog ne ndax kenn xarewu ko gannaaw mooy ku dox foog ne muy jiitu ñun ndax yorut kenn foog ne ndax kenn xarewu ko kanam kooku moo def dañ ko raw bu mën di seen ñu ko raw daaw ci départ bi la toll rek ah yow demee ko fenn te foog ne ndax yow yow yow yow ku ne foog ndax ku ne sañ ko xeeb ku ne sañ ko yëngal te yow demee ko fenn loolu bu dee danañ ko baax a wax waaw xam ne tuuti la jàng di yor ñoo xam ne ci jàng lañ tale woon di liggéey di liggéey ba àgg fañ toll te lañ jàngoon sama jàngut gën wàlla loolu du nite waaw tuuti la jàng waaw di yor ci jàng lañ di liggéey di liggéey di liggéey ba àgg fañ àgg te lañ jàngoon ba nga tàmbali liggéey sama jàngut moom jàngagut ko kon ñu foog ne mu ngi lay yu balaa bi bu soobee ñu tàmbalee woon loolu mooy leen ba tamit bu soobee ñu tàmbalee woon. way daa taalan naa bu jorto sunu yaa di ma mooy ne jëkkër yi doon na ci ne ko fookal masa di mu ngi ci kaw njubbu doj yi dafa ko kooku jubbum rek yi di mooy ko dog doj saaka loolu addiwaa mooy ndof ak sa jëfañ na addawaa garab la woon yàlla loolu mooy xamaaxa xamaaxa kenn mënu koo faj li kulli daawin dawaawoon yustajabu bihi illal xamaaxata illal xamaaxata ayat ma yu daawiya waaye kullul mu daawina de képp ci way gargal yi ak dawaan ndox bi la dori daway dagg li kulli daawin dawaawoon yustajabu bihi illal xamaaxata ayat ma yu daawiya waaye kullul mu daawina de képp ci way gargal yi addawa ndox bi naa dégg aleykum salaam waxtaanoo jikko am na ko moo gën a moom nit nit su bëggee di jëriñu ci leeral xam-xam dafay jikkoo jikko bu mën a dalal xam-xam leeru xam-xam su bëggee jikko eh, jikko buñ ne baax na muy ko def buñ ne baaxul muy ko def wasanaa jëf yi ful ko taw ci waay te lu xam kenn jikko la liggéey yu baax yi liggéey yu nit ñu baax ñi ci nit soo mérité dalal ko soo jikkoo jikko bu mérité danga doon dangal mu jikko la ji yow soo jikkoo jikko bu mën a dalal xam-xam day doon dangal mu yore xam-xam moo ko jiitu wanee ren way sañ la maanaam boobu lay mën a liggéey si yow wanee ren way sañ la ñoom sana waay yi xam nga wëlisi waay im lam tablu ndegam fekkuñ baax ndegam fekkuñ ëqulu ci wàllu laaj la am nit waaye ku la sonn war a mel daal loolu war a jiital il faut da ngay amee jikko boo déggoo xëyru bu xëyru ñëwee mën a am place ci yow nga mën ko jëriñoo waaye jikko boo ne sori na déggoot moom bu dee moom rek sori rek moo koy nekk nit bindu réem dafa am melokaan yoo xam ne déggoo na ak sell am melokaan yoo xam ne sell di la déggoo luñ ci pet du mu ëpp dara rek loolaa saa ne soo bëggee ne luy sellal nit nag da ngaa jéem a góorgóorlu ci yi sell soo bëggee sellal ci xam-xam da ngaa jéem da ngaa góorgóorlu ci yi xam-xam sell ci nit wala ko lu jàpp yi te mooy suuf si nangu moo wal baqli mooy sawal gàncax du la neex rek soo wal gàncax daa xorom yu doo ci doo ji jëm dara te yéen a ngi taw dana ci taw waaw bu ko defee xam-xam yi noonu la kon taw la li koy ñëw jot yi koy dalal wal xaddu cott allati ak cott allati bi nga xam ne yéen taaru da nga ba kon kon loolu tamit ñett lañ di xàll moo la dégg nga ji teg ko suuf si bañ defar dara baax na foofu. mu jaaja kulli adibatin wa subdu laysa xilaasa kulli musaddidi kal masrakiyu lhundwani irtadi yujla wa yushadu matnuhu bi muhaddadi wala rubbama sunna alkahamu bi mawtinin in lam yakun an matnihi min hundudi yurji ila muhin araqi bittawa ويجيء فقد العد للمستثمد tabtun ala bi taamulin wa taalluqin in lam tafuz in lam tafuz min nayliha bi mutalladi wala say na waay mu ne wal ar yu lam laysa mujaaje kulli asibatin duur yël weñ wu weñ ñëppay tawal wala yi ci ëpp day waaye ci seen tool yi dëgg lam nag dañ leen a tànn waaw ah jikko yëpp nit ñi dañ koy jikko yow waaye jikko yi dañ koy defaree nag moom dañ leen a tànn waaw dina bu baax a baax dina bu nekk bëgg xewri nag nekk na séparé sorul na ko soree de wasul bi diw laysa xilaafa kulli musabbidin du saggite bépp aji diwal yi xam neen bëri na te lu baax waat xeeti doom yi def koy tey ak xeeti garab yi xam neen bëri waaye diw gi ngay lekk hmm. dut menam garab goo jot de dut menam doom boo jot de dut naliti doom boo jot de hmm. dam koy tànnal doom de hmm. ah, waaw ngay tànn koy tànnal doom de waaw telu waaw waaw dama ñëw nag mu génne dara bëri na garab yi am neen bëri na waaye diw gi ngay lekk dam koy tànnal garab goo koy nalaaj xam ah, nga garab goo nalaaj génne dara lekk rek ilmu talxiisi wal axlaaqu masraatun تعبد الأرض تزلزل المطر ونتعلم مصر في جاس جو كجو مصاري الهند واني جو كجو هند انت دعا بقوم آجو illaa def na ko fomp wayu saasu te def na baasee mat ne gannaawam du mu haddidin ci aji ñawal dëkk la bu fiiree lool man kii man jaasi fiiree fiiree sa segun hindi fiiree lool mu ne jaasi hindi di askanu masaarif mën naa xoomaa ba mel ni waratul dagg waaye buñ ko fompee daas ko rek dana mën a ñëwaat nit léeg-léeg day am càmpal bu baax a baax a baax mel ni ku baax waroon a yomb la mu sàgganee ko ndig jublu àddina ndig jublu àddina ba lu bëri ci càmpal ba ko bu doogee ci dëkk rek la muuru rek xam nga nag tardement ko nag xam nga tamit tilima fi nekk liw fi def bi set su tilim lawu doon su ko fi defee dafay rafet lool tënku na ko xam nga bi set mbir mu toll fa mu toll woon ba mu tilimagut su dul li ko soo ko defee ci mi dafay rafet lool xam nga dama la koy baax a baax loolu moo tax njubóot yi amul sol rek ku man da ngay jub rek ah seetlu nga ko ah tilim moo fi nekk li mu fi def ba tilim bi set mu toll fañ toll woon ba ba tilim bi dalagut su tilim bi ko. nga def ko fi dangay romb fa mu toll woon taaru mel xaw ma seen leen kër de adbeel xasanata tamhuha adbeel xasanata sayi adbeel sayi atal xasanata adbeel sayi atal xasanata tamhuha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax mu ne boo defee loo bon teg ca loo baax su ko defee loo baax li far ko lu baax loolu xam ne suñu àll si fekk far ko bu ko faree ba pare yow fa nga toll woon ba suñu ab yi dikkagul mën naa foofu rek nga toll de soo ko defoon bilaa suñu atil nag dafay dikk ak leeram nga romb fa nga toll woon xam nga nga ko wala seetlu nga ko ah lu jar bàyyi xel la lu jar bàyyi xel la lu jar bàyyi xel la waaw ñu lekk ci lu amul njëriñ baaxut leneen jamono baaxut bakkat baaxut dafay sakkanati dafay sakkanati dégg nga ko ak ne sayyi'atan hasanatan tamhuha mu ne soo defee lu bon da nga caa teg lu baax su ko defee lu baax li far ko lu bon moom bi nga ko defee ku tilim dëgg nga bu lu baax li dikkee dindi lu bon li li am mooy tilim moom moo fi neexatut waaye ba nga tolloon ba nga tilim moom nag moom ah romb gu la ko de <laughs> romb gu la ko de ah. lu doon jar na seet lu doon na di seetaale xam nga seetlu yëpp ku na di seetaale de waaw. jar na di seetaale de. yàlla yi ragal lool lool lool lool lool lool lool daa leen def ci ci duñ nangoo laa bëgg buñ bëgg fayam lool daa leen nga tiis ci duñ nangoo sant sage dara luñ santaan ba dee bu mu bëggalam yàlla dëkkeewee noonu ci sa xel mi ba yeeg yàlla dëkkeewee noonu ci sa xel mi da ngay doon kuy dund ci àddina te sa xel mi mooy tëyu mooy li am solo te yu mooy li ñuy wax diggante ni ngi tey fii ak Kaolack yow mu ko naaw rek ci benn bi yow mu ko dem ci benn bi waaye yow nga toog man ñu nga tegal marché Kaolack fii de nga di gis marchandise ma nga dégg waxante yow client yi nga déggee fay xew xam nga dama di am xarit loolu moom la ñoo tëyu ñaari gàttal diggante yooyu waaye tëyul xaqiiqa yu bi am solo te lu baax a baax a baax bi gën am solo mooy ñu leemal la sa diggante yàlla sira ba nga gis ko mu gën la jege lu ne da nga nag ah, mu gën a jege lu ne de mu gën a jege lu ne de mu dem ci mbedd ma sàtt la mu génne ci nii bi waaye ki ne ci nii bi war a dem àllaaxira waaye àgg àllaaxira te du génn nii bi kon loolu àllaaxira war gën a jege mbedd dëgg la awatana awatana awatana rek sama ren ko sama dëgg la waaw dégg na de dégg na de wala jege lu na de wala jege lu na de awatana rek wala sa ki nekk ci ndéli fi mu ne nii su bëggee dem ca mbedd ma pour mu dem ca mbedd ma mu génn ci néeg moom sarta la ciy dox wala bu ko defut du àgg mbedd ma te loolu xam nga ko ki nekk ci néeg bi war a dem àllaaxira pour mu àgg àllaaxira mu génn néeg loolu lu ko waxal mooy li nga xam ne àllaaxira moo ñu gën a jege dem ah moo ko gën a jege dem moo ko gën a jege ba tax gannaaw xam nga jaasi jooy ñaw del naa mu bu mu xaw nga fexe ba mu commencé lañ cee def commencé ba gën a set mu toll ba ba mu commencé gu wax dëgg yàlla bu commencé gu doon nga def ko ja seet a te rafet ngay am waaye nag boo kaa gënee ba mu a gin nag ah soo yaboo rek ba doo dagg de waaw. te lu baax a baax a baax lu baax day far ci yow nga foog ne yow da ngay def bàkkaat di def loo baax rek su ko defee ci bàkkaat bi la wàññi dara lu baax da ngay defar bàkkaat waroo koo déggee ne yow fa ngay def bàkkaat tey def lu baax déedéet da ngay yooyu bàkkaat loo man loo man nag bu dikkee ci dogalu yàlla nga tuub da ko defaree lu baax da ko da ko jéem a faree yu baax loolu la nag waaw waaye bàkkaat dëgg-dëgg day tànn ni loolu laa moo ci nekk rek at bee sayyi'atal hasanata tamhuha loolu yonent bi wax mu ne boo defee lu bon da nga lu baax su ko defee lu baax loola dana far gaafeeg lu bon la su ko defee su ko faree ba mu jógee fi yow ba nga tolloo woon ba nga defagul loo bon foofu ngay toll gannaaw xasana bi moomu sayi ati la fi liggéey kon yow fa nga nekkoon xam ne sayi ati ah foofu nga nekk de loolu <laughs> bu baax a baax la su fekkoon xasana tun bi la sayi ati la nag te yow fa mu liggéey ah da nga romb fa nga tolloo kon xamee nga ci ne bàkkaar la dafay tardel nit loolu ki koy tuub lay tardel loolu ki ko tuubut waaw wal masara fiyu jaasi jey ko yug masaari al hundu waani jey ko yug hind in sadiya bu xoomaagee illa dees na ko pomp wuyu saabu te def na daafee mat na woo gannaawam bi mu haddidin ci aji ñëwal. wala rabbina sunna léeg-léeg daafee. Hmm. alkahaamu pëdu. Hmm. mooy jaasi ju ñaadi. Hmm. du ma tereen ci barab. illa yukun ndegam nekkul minoon du din daw waaye jaasa mat ni yi walis gannaawam. mu ne jaasi joo dafa ñëw bu fi sufi. dañ ne naxante fa dagg ci dara. parce que su fekkee ne yow yéen ay jot waaye yim sàgganee dafa bëri bañ raw ko lool kenn nga xam ci xam-xam bu ko xeebee bu wuti ji lu baax du wut lu baax kenn jamono bu muy dund ji lu baax du am lu baax nit da nit nit fu mu toll rek da war dëgg te loolu daf ko muy baax waaye jàpp ne comme raw nañ la ci nangam raw nañ la ci nangam te wutoo lu baax waaw looy xeeb rek yàlla mën na yërëm nit ci lu gën a tuuti yur ji dana loraloo mu xin araa kii bi jëm ci yiw ak ay inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirina xam nga ñu fi yàlla ñu bàkkaatuñ wax dëgg yàlla moo gën ñu bàkkaat xam nga loolu la mu fasiroon yi ñu ne boo gisee mutatahiroona yi gën te njëkkee tawaaboona yi ci tuub mooy tawaaboona yi dañoo bañ ñu naagu ci yërmande yàlla dañoo bañ seeni bàkkaat wàññi seen yaakaar ci yàlla mu tatahiroon yi dañoo bañ ñu defee xoj bu seen selle dañ ko di wax dañ ko di wax nit nu mu bakkat bakkat dafa war a yaakaar yàlla waaye lu mu góor góorgóorlu ci yàlla itam nag mbaax ak yàlla rek ci la war a sukkandiku dama si nekk rek dégg ci la war a sukkandiku mufassiroon yi wax nañ inna allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirina te mutatahiroon yi ñoo gën tawaboona yi boo gisee ñuy gisal tawaboona yi dañoo bëgg buñ naagu ngeen yaakaar ci yàlla wàññeeku boo gisee ñuy yéexee mu tatahiroon yi mooy buñ def wàcc am ko siroon yi dañ ko di wax yur jiig lay loruloo attawaaqiif illaa mu xil xaraaqi bi jëm ci yuur ak ay dojoor xamut waaye gannaaw moo fi sos te yaa ngi xiif lekk ci xam la taxawee moo gën xewee gu tuuti gi daana dala ci fekk de koy jiw dana dikku la mooy dana leru la toqatul ay du ñàkk ndox mu bari lil mu tas mu di ci ndox mu tuuti ndox su tuutee tuuti waaye gannaaw moo fi sos ah naan ci xam la taxawee ah, gën xeeb ko ndeg tuuti ga ba mar dala jage te la ko baax a baax wala takk na ngay sakkoo alaala kowe bi taamulin ci toggoo lëggéey wa taxalluqin ak jikko jikkalu innam tafus bu watta xeewut bi mu talladin ci lu ñu sakk baax mu ne laa ci xam kowe yi yow su fekkee ci njëlbeen dafa mel ni tax defan nga bu bëgg lu baax dikkee rek jamal ci lu baax wax na foofu léegi te xamula njàngam gune bal wax ne doo soo léegi tey yaa ngi leen jàngal gune bal yaa ngi dootoo jàng waaw te loolu baax a baax a baax bal yaa mbir waaw ndax dina dootoo jàng doo xam tax waaw boo teelee yàlla mosante dara mu dox sa diggante réer moo doon jënde te loolu bu baax a dama xamul leen jàngal gune bal yaa ne dootoo jàng soo teelee jàngee soo jàng itam ah baax soo jàng nga sax bul xew a jëriñoo li nga tolloot ndax li nga tolloot man caa amee njëriñ soo génnee te mën a am njëriñ ci leneen dangay tàgg rek waaw baax na maalimu faxtadim wa taxaaru fa israani mi aqtadi wa dawul basairi fi lxayaati wa in sanu wal umru mafqudun wa in lam yuftadi wal ilmu bad'an laysa aryan sayyigan lakin junaatul hamdalil mutahabbidi alqun nafisun la yuaaru wa nairun mutahabbidun an kulli xadmin aw xadi baax na foofu jàngoo bi ci topp lam yusmihi sahmun walam yaktasahu baasun walam yusra gram yetti miqladi mu ne wa ida tabiinu bu biree laka ñaal almaalimu mandargaale kay te muy turuqul huda sax te dim na nga lëggéey wa ida taxaaru soo gëlëmee sax te di na nga gaaw ifra alimiha ci gannaaw aji xam maalimi soo gëlëmee nga laaj nga gis nga bu baax a baax mu ne gannaaw yooyu da nga am bakkan bu xam ne da lay faral di digal hmm. eh, kii di digal lu bon hmm. hmm. ci def lu baax lu baax loola ngay forcé bakkan bu sell bi ko donte mën na yem ak lu baax lu baax ci borom bakkan bu sell itam wax dëgg yàlla am ko moo gën ñàkk ko te mën naa dema dema dem ba mu jural la def lu baax lu sell la te dana ba xam ne lii mooy yoonu dëgg na nga baax lii mooy li baax nga fexe ba jëfee ko na nga fexe ba ànd ak moom xel man wa amalan wa xaalan xam ne ci waaye ba tamit li lay santaane xam ne ci lii rek leen nga war a nekk. gëm loolu bu baax a baax a baax baax. gëm li la war a jegeñal yàlla. wax dëgg yàlla mënoo dawlu wëlis borom bi. su boobaa lépp looy jural jege yéen man dem na loola war na lay ñor. nga gëm loolu loolu xel mu la. su ko defee loolu mooy def ci yow la nga yëg ne lu baax na la. loolu mooy xaal bi. ñor gim la ñor ci sa xol nag moo puus nga ko def loolu mooy almu mooy amalu bi waaw dina ñetti mbir yooyu la al ilmu wal xaalu wal amalu yu bëri ci liggéeyu dina loolu la su ko defee al ilmu mooy de samaratul xaali al xaalu mooy de samaratul amali dina ko baax a baax mu ne saa bi xamalan wa ilman wa xaalan fekk alxelmu mooy samaratul xaali alxaalu mooy samaratul amali waaw dangay baax ne lii mooy li nga war def lii mooy li la war a jegeñal yërmande yàlla lu ko mooy lu gaafoo la dëkk ci yàlla la lu la sori la yërmande yàlla la te xam nga ne yow mën a ñàkk soxla ci sa borom loolu gëm ko mooy xelmu su ko defee loolu dafa def ci lu baax ñor la ba teewal ko fi jëm loolu mooy xaal su ko defee loolu ci yow jëm ca mooy amul sëndu loo ko alxel mu mooy samaratul xaali alxaalu mooy samaratul xamali waaw bu a baax yoo xam ne yëpp bu jaar la sama bu baax a baax bu ànd ak mbir mi ngay jànkuwante waaye mën naa am bu bu mu ngi topp ci sa xel bi loolu moo tudd xaal leeral na xel dafa yëg te du jël benn jamono mm. moo tudd maqaam leeral yëg na bu bu bu du tàgg benn jamono moo tudd maqaam dafa ñan dafa ñan jamono mais da ngay ànd ak moom xamalan waxeel man waxaalan wala da ngay ànd ak moom waxeel man waxaalan waxamalan bët ah loolu baax a baax وإذا تبين ببر لك جعل المعالم معنى قال كي تمترق الودع su demee ba leer ak yow waxta bi na nga leen liggéeyee na nga ca liggéeyee na nga gëm ne lii nga mën a xaw lii a xaw si rek ci nga war a bi loolu def ci sa ca ndax xol mooy xol mooy commandé fu ngeen rek dara cër yaa woon way daa taxaaru boo gëlee waxta dina nga gaaw israalimiha ci gannaaw aji xamam soo xamul nga laaj ñi xam fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun dafa amoon kenn ci kilifay jullit mu am réew mum dem tamit bu baax net li bi kum de dëgg dëgg des naa koo xam man naa dégg ne bàyyi ñaas la waaye wóorut dama ko dégg rek. waaye net li moom bu am njëriñ la danaa xamal ma ko sene doon saxiix nag. man damaa dooleel rek hikaaya bi. dafa amoon genn kilifa diina. gu mos a tukki. ci akam réew. xam ku mu fa dajeet ko nekk ci diine l'islam. te kooku jaar ci biir lay liggéeyee te na nga ko déggee kooku ne ko yéen a wax ne seen alxuraan bi deful dara mu ne ko waa defu dara de mu ne ko waxal ma usine bii nii leen ñaata emploi ñoo ci nekk ñaata ñoo ciy liggéey ak li ñuy génne par bis nu mu toll ak li ñuy lekk par bis ci produit yi nu mu toll ak nangam ak nangam ak nangam te nga dëgg ci alxuraan mu ne ko ana directeur bi usine bi mu ko loo koy defee mu ne ko laaj ko mu ko déet nga sukkandiku ci alquran laa wax mu ko waaye ci alquran laa ne dañ la fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun ba léegi ci alquran laa ne xaw dañu na li bi laa am soxla rek waaw li bi laa am soxla waaye nag xamee nañu ko sama doon saxi bu mën a waa ne diw sàngam la dëgg-dëgg la rek bu xam ne ci moo doon gën a lay ko daan dégg ba dégg wa dawul basaayir borom gis la xel yi fil hayaati ñum ci dund wayen ko ne donte après ren jeex nit bu ko yàlla joxee xam-xam mooy liggéey ca xam-xam bu lu yàlla gërëm du deeati mukk du deeati mukk du deeati mukk waaw nit bu ko sama borom joxee xam-xam mu jaamu yàlla ca xam-xam ba di jëfee la xam-xam ba di santaane da mm. daw la xam-xam ba di aaye mm. di jikko yor bu ba déggoo xam-xam ba mm. kooku du deeati mukk du deeati mukk du tàggoo teg leer du tàggoo teg sell dina ko baax a baax du tàggoo teg leer du tàggoo teg sell dina ko a loolu da ngaa dina dootu am place ci xolam mën naa ne ci loxoom sax dootu am place ci xolam ku doon ku doon ba génn àddina ku doon la jóor wàcc rek lay daw nee na rek fee ko ma kaanal amru fa mm-hmm. qalbul mu'mini mm-hmm. la yamutu alxasan mu ne la yamutu mahallul imani والنور عند الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر moom kooku li am mooy day amee day day amee xol bu xam ne la yëngatu abadan mooy xol bi du mos a tee lëndëm hmm. mu am leer bu xam ne la yum haa indal mawti hmm. leeram googu bu demee fay génn jamono bi moom lay ànd ak dajee ko yàlla hmm. wa sama in la wa takaddar mu am sell boo xam ne ndox du ci tokkat moom la dajee ko yàlla bu koy doone mu ko xanaa liggéey bi wàcc rek moo fa nekk loolu borom bu fi bàyyeekoo itam njëriñ fi ba day tax ci lañu rafet def si jaamu yàlla di jëriñu ci moom di rafet dafa aussi dafa fekk fan nekk aussi itam ñi ko ñaanal su waaye moom foofu ñàkk ne rek waaye ñu fi nekk ëppuñ ko fi ci dàng foofu ñàkk ne rek waaye ñu fi nekk ëppuñ sa doole bu baax a baax waaw foofu ñàkk ne rek waaye ñu fi nekk ëppuñ ndax ñu nekk tur wu rafet lañ si am ak tuyaal te mu ngi ko fi am. Eh, nit lépp dana ko yóbbaale. su ma yor ñetti mahabbatullahi. Mm. loolu bu baax a baax. ak maarifatullah nit ñetti wér yi lu mu ci am hmm. du tàggoog moom sifaayul xalbi mooy jur maarifa hmm. maarifa mooy jur mahabba hmm. kon ku baax ma sifaayul xalbi ñu ngi koy amee bil iqbali alallah waaw xol bi na ci bëgg yàlla nekk yàlla ñor la su ko defee ñor googu mu ñor la mooy tàngee góorgóorlu ci lim santaane topp hmm. kitaabullahi topp sunna su ko defee mooy dema dema dem bañ def ci yow leer googu ñaan wa it tuuti aw tas tegu loolu dem ba def loolu su fekkee lëndëm rek nag mën a gàllankooroon ca xam sirrul malakoot bu lëndëm bañee rek nga jëloon gën na yey ñoom nag ba gën a ndax yàlla ñàkk xam naa yàlla moo la gàllankooroon ci sopp yàlla gàllankoor waaw man daal tasawuf wax dëgg jàng ma ci fenn fu war na caa dëgg dafa yefal sariya waaw man nag buum ne mel dafay dund ci tafee bu duuxu waaw ah, da nga xam ne ay téeréem di yor nii rek da wax te kii faraas lu rek waaye man bu sax ñu may dund waaw waaye daal benn suuf yi boo xam ne tasawuf foofu wér na mu ne ñeme loolu nit ñi sañoo sariya bi te loolu dund loolu man gisuma waaw ah, gisuma waaw ah, gisuma waaw dëgg yàlla gisuma hmm. waaw dëgg yàlla gisuma bu dee moo ko def ana lu muy xam lu yonent bi xamut ana maqaama bu muy war a toll lu yonent bi xàggut may muy jox boppam sañ-sañ boo xam ne yonent bi joxe ko woon boppam sañ-sañ yonent bi sañu doon sañee furiya suñ ko woon xookal ngir gaa laa رمضان بصائر برم جزي قلي في الحياة من جبل ولم سنة دلت عسكر الانجيح والعمر كذا نبتلع الجاهل وقمر نمي دون يدون بفادنا ku xamut nu muy jëriñ ñoo dundee ba dina xam ne àtte bëgg rek laa amee da nga sawru xam nga sawru tëju hmm? sawru xam nga yëkku nag xamuloo waaw koo xam ne umrun ka sawrin <laughs> umrun ka sawrin sële bu baax mooy kooku man koodu ku ñàkk la nekku fi waaye nag ñu kat donte gerte kooku ko donte la sax ba léegi ñu ngi jëloon taxul mu ne fi ndax amul njëriñal lekk xam maatat qawmun wa ma maatat karamatuhum am na ñoo te seen teraanga def yi ba faw wa aasha qawmun wa hum fi nnaasi amwaatu xam waasa qawmun wa hum fi nnaasi amwaatu am na bi am na bi waaw su ko defee kon xam-xam nii nag waral xayaatun abadiya xayaatun laa mawta baadaha soo ko bëggee am ana foo koy jaaree ana yoo war a mën a yoo war la lay jàngal mu ne waral mu xam-xam ba am lay sa arwel du mu lem de sa yaram bu daa ji neex mooy du lem gu neex de déedéet lakin li fi nekk ay ñooñam junaatul hamdali way witt qatar lañ al mutahabbadi bële buñ togg mu ne qatar bu wax buure ñu togg ko mu tàng jër boo ne waxtaan rek tàngoor bi nga bàyyi xel da ko moom la nga laajoo nga mën a muñ waxtaan laajoo ko nga mën a muñ tàngaay noonu la laajoo nga mën a muñ tomaranke de ci booy sàkku xam-xam noonu la laajoo nga mën a muñ coono de ci booy sàkku xam-xam waaw waaye di jàngale dagg lu lu xew da nga ko fekk loolu mooy lan lu xew rek yow da nga ko fekk loolu mooy lan ne bu baax yow li xëy na dañ ko set loolu mooy lan lan la set bu baax a baax a baax waaw. kon waneen ñu xam-xam ba daan te njëlbeen lay saar yoon duñu lem suñu xam gudaa ji neex lakin li fi nekk aw néem junaatul xam doli way wittu xatar lañ al mu taab ba di bëri bu ñu toggu el xun waluur la mooy lu foor la nafisun aji foor la la yaaru diwu kool la mooy dund ñuy xab la dañ koy jaay xam-xam soo ko bëggee koy jaaree fi yoon waay ñoom la am si nga ko rek lim la laajte mooy sa lépp nga jox ko ko dara caa mën a am dara waaw lim la nga jox ko sa xol jox sa alal jox sa temps waaw waaw ay solo la. متعبر الأري فريلا عن كل صدم تلوس أجي ديس أو غدين كراجي سوبي تمام واو waaw mais mhm. duñ ko jàppee ak yambara de mhm. waaw yambar du ko jàppee góorgóorlu rek tama bu mhm. baax a baax a baax waaw sëriñ bi dëgg ku bus du ko dole Sénégal dañoo war de dañ ci dëgg dañoo war a guus toog fii rajo bi taxaw na